laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajaalhu shaakiran wa zakiran abad wajaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara leen ñaanal jàmm ak mucc ak xéewal di bëgg ñëw rek comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def ak yéen ci ay bis bu jot di ànd ak yéen ci ay bind ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nax xadail xaaj ci sunu bind bi mujj ñu taxawoon ci fi sëriñ bi doon soññee ci xam-xam waaye ci saraa bi nga xam ne ci la doon sara tey wax ne xam-xam day lu jafe la waaye lu tedd la waaye nit du ko am ci lu dut mu not bakkanam nit du ko am ci lu dut mu not bakkanam waaye xamal nañu ne not sa bakkan googu nga koy amee na mënta am ci lu dut ngay xiifal sa biir waaye ngay jiima fokk guddi di mar di nungoo xiif di nungoo sonn sa cër yëpp nga nungu ko sonne ngir am xam-xam boobee waaye it ngay def ay sacrifice ngir la nga xam ne moom nga ci bëgg dëgg-dëgg nga mën koo jot kon tedd googu mu tedd moo tax am ko doon loo xam ne lu yomb lay doon moo tax sëriñ bi nenu ab foñaakoon la moom xam-xam kenn du ko am ci lu ak muñ maanaam ab muñkat dëgg rek mooy ki nga xam ne moom moo ko fay xaar ab muñkat dëgg mooy ki nga xam ne moo koy jox la nga xam ne moom la yellool ci waxtu waaye la nga xam ne moom la yellool ci ak muñ waaye la nga xam ne moom la yellool ci jox ko yitte waaye it la nga xam ne moom la yellool ci euh, jël sa dund gi yëpp rek jox ko ko ci foofu lañu taxawoon mooy fi muy wax ne li anna al ilma nafuurun laa yanaaluhu illa sabuurun mu ne xaala wax na ashaa'iru waykat ba utlub na nga sàkku xam-xam wala te dajjar te bul yokkat min matlabin ca sa càkkutéef muy xam-xam ba ngay sàkku nee na lu tax mu wax la loolu nee na fa aafatu taalib bi gàkkub way sàkku xam-xam de an yad jara mooy mu yokkat nee na xam-xam de boo koy sàkku bul yokkat mukk maanaam bu la ci dara tax a yokkat bul ci gis ay gàllankoor tax nga yokkat bul ci gis ay coona tax nga yokkat bul ci gis gis mar tax nga yokkat bul ci gis xiif bu metti tax nga yokkat bul ci gis ak ñàkk tax nga yokkat bul ci gis ñu lay ci mbugal di la ci duma tax nga yokkat nee na loolu lépp bu mu la tax a yokkat ci xam-xam nee na xam-xam daal boo koy sàkku li nga xam ne moom nga bëgg muy xam-xam rek na nga ko jox sa yitte yëpp waaye li nga xam ne mooy gàkkal aji sàkku xam-xam mooy mu yokkat mooy lan mooy nga gis dara loo xam ne gis nga ne lii jafe-jafe la tàbbi ci biir jamono ji ngay saako xam-xam loola yokkat loola ba tax nga bëgg a bàyyi sàkku xam-xam ja lu mel ni nga doon sàkku dara amoo wala ab ab ab ab e, situation bi nga xam ne moom ngay jànge e, xaw a doy waar mu mel ni say jumtukaay du mat wala ngay xiif ci e, waxtu wi nga xam ne dangay soxla di lekk yooyu yëpp di la gaar ci biir sàkk bi ngay sàkku xam-xam ne na yooyu yëpp su la dee gaar na ko muñ rek te xam ne xam-xam mënee su ko am ci lu yomb te kuy sàkku xam-xam du gaaw a yokkat waaye day sax ca la jàng rek di ca sëgg bu baax te di ko jox yitte te di ko gëstu bu baax te di ko baamu ndax baamu ka nga xam ne moom la koy baamu loola mooy tax xam-xam ba des ci moom waaye mooy tax mu am jeexit ci moom ndax nee na amatara ndax gisoo alxabla buum ga li takraari yii ci ak baamoom xat asara amaana mu jeexantal fi saxrati ca doj wa asama wa di aji tëx nee na li mu lay misaale loolu rek ne na ak buum day ci pindub teen su fekkee ne ñi ngi root ci teen bi buum gi bari gi nga xam ne moom lay bari di bagante di laal pindub teen bi do doju pindub teen bi lu mu dëgër dëgër dëgër buum nga baamu gam cay baamu dana ca def ay jeexit maanaam ba nga xam ne boo ñëwee di nga xam ne fii ak buum moo fi doon jaar di dem ak a dikk nena na xam-xam tamit noonu lay def ci ki nga xam ne moo koy sàkku su fekkee ne jox na ko yitte di ko saytu bu baax a baax te di ko baamu nee na faw mu bàyyi ay jeexit ci moom nee na wa annal mutaallima naka aji xamlu ji laa budda mënta ñàkk lëhoo ñeel ko mina tawaadon ci ak toroxlu wal imtihaani ak ak suufeel boppam di wàccee boppam fi taallumi ca xamlu ga wa illaa su defut lool nag lam yasfar du tuuf bu ca loolee muy sàkku bi muraadihi ca lam ca namm ne na ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam day lenn rek la war a def mooy di toroxlu waaye di wàcce boppam di e, toroxlu ci kanam ki nga xam ne moo koy jàngal waaye it e, jox yitte bu baax la nga xam ne moom lay sàkku ne na loolu de bu ko defee la muy sàkku muy xam-xam mën na caa am la mu ca namm waaye nag ne na su ko deful Euh, bu boobaa la nga xam ne moom lay sàkku muy xam-xam mën na caa bañ a am la mu ca bëgg wala bu ko amee itam mën na koo bañ a jariñ moo tax mu ne fa alayhi kon war na ci moom an yatruka mu bàyyi atarafuha ak fiix wala yajlisu te bu mu toog ala firashin ci ab lal abad ba faw abadan ba faw waxtu taallumihi ca waxtu wa nga xam ne ca lay jànge illa li daruratin ndare lor faadixatin jay aji diis nee na yow mi nga xam ne yaay jàng day na nga xam ne warteef la ci yow nga bañ a bëgg am nooflaay bañ a uh, gënal am nooflaay ndax nooflaay kuy jàng du ko gënal waaye it bëgg lu yomb kuy jàng du ko gënal ndax jàng moom ak sàkku xam-xam coonaay kese la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy sunu yaakaar te suñu borom yónni ko ci ñun ngir ñu ngir mu gindi ba jibril di wàcc ca moom di ko fekk ca xaaru xiraa ba mu koy jànguloo booba xawoon na fa sonal yonente bi saa sallam kon loolu moo ñuy won ne xam-xam moom mëneesu koo am ci lu yomb ndax gën gi mbindeef gën moom lañ ci sonal waxuma laa koo xam ne da nga koy euh, sàkku te euh, bokk ci ñi nga xam ne ñooy ay ay ay ay ñi nga xam ne ñoo gëm diine ji nga xam ne moom la indi ndax Euh, boobee bu ko jibril di wax jàngal yonente bi sallallahu alayhi daf ko ne mënumaa jàng mu wax ko ko ñetti yoon ba mu ne ko mënumaa jàng dafa tàmbali du sonal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca la ko doog a wax ne ko iqra kon foofu ñu man fee jàngate rek ne xam-xam mëni ko am ci lu yomb te képp koo xam ne bëgg nga ko faaw nga def ay sacrifice faaw nga nungoo sonn waaye faaw euh, ñu la ciy mbugal faaw lu ne mën nga ko cee daj ngir lan ngir man caa am la nga xam ne moom nga ca nam waaye soo koy sàkku na ànd ak ay teggin bul toog ci kaw ab lal mukk ca jamono ja nga xam ne ca ngay jàngee lu dul ne liilu lu mënta ñàkk la li ki mel ni dañoo defar barab yoo xam ne dañ fay jànge waaye it dañuy euh, defar ñëpp ay toogukaay ñu toog ci kaw bu boobaa loolu da ngay xam ne lii lu mënta ñàkk la wala ngeen daje foo xam ne euh, fii kat wax dëgg yàlla kenn mënu fee toog ci suuf bu boobaa yooyu yu mënta ñàkk la Euh, bu boobaa bu ab lal amee wala ay chaise am yun teg yooyu yëpp dañ ko mën a toog ndax ngant moo tax nga def ko waaye nag su fekkee yooyu yëpp dàqu na moom lay ay teggiin booy sàkku xam-xam nga euh, toog ci suuf féete sab sëriñ suuf toroxlu ci kanamam ngir la nga xam ne moom ngay sàkku nga mën caa am euh, la nga ca nam moo tax mu ne wajma na nga dajale nanga nga boole himmataka sa yitte waxta xiraatika ca waxtu wa ngay jànge fi ma taqraw ca la ngay jàng wala taltafit te bul geesu ilaa siwaahu jëm ci leneen lu la ngay jàng wala tastami te bul déglu ila naasi jëm ci nit ñi wama ak la nga xam ne hum ñoom fii nekk na ci nee na mi ngi lay dénk tamit nga euh, dajale sa yitte yëpp rek waxtu wa nga xam ne ci ngay jàng lépp loo xam ne moom nga jàng rek na nga ci def sa yitte bu baax a baax a baax ngir lan ngir man koo saytu ngir man koo toppatoo ngir la nga xam ne moom nga jàng mën a dugg ci sa bopp waaye bul geesu mukk di euh, xool leneen loo xam ne dafa wuute ak li nga xam ne moom nga dëgmal mu di am njàng mu di sàkku xam-xam bul xool leneen loo xam ne moo la ci andil euh, ak ay tolof-tolof wala moo la ciy gàllankoor yooyu yëpp na ko daw bul déglu nit ñi ci la nga xam ne ci lañ nekk bu fekkee ne keneen dafa nekk ci leneen di la ca woo te yow yaa ngi dëgmal li nga xam ne mooy xam-xam di ko sàkku ñooñee bu leen wuyu ngir lan ngir ne soo leen wuyoo mën ngaa leen no topp ca la nga xam ne ca lañ nekk te bu boobaa xam-xam bi nga xam ne moom nga doon bëgg dafa fiir ba du euh, bokk ak lenn yow lépp loo ko nar a booleel rek mu balaak loola kon loolu day tax nit ki war a def yitte bu baax ci Euh, waxtu wa nga xam ne ci lay sàkkoo xam-xam jëm yi jël yitteem jëpp dajale ko jox ko li nga xam ne mooy xam-xam moo tax mu ne wa annahu naka moom yuusika dana la dénk bi an laatu axira ci nga bañ a yeexe a xam xamlu ga watu sawwi fa ak ngay niig niigal fii ca moom ilal firaaxi jëm ca féex minal asqaali ca soxla ya ne na niki noonu tamit noonu la lay dénke ne na booy sàkku xam-xam nga bañ koo yeexe maanaam bul xaar mukk naan damay am damay xaar ba am ay at sàngam wala damay xaar ba def nangam ba pare doog a e, jublu ci ak sàkku xam-xam ne na bul ko def mukk ne na bul niig niigal mukk soo waree sàkku xam-xam demal sàkku ji ko ci jamono ja nga xam ne ca nga ko war a sàkkoo saa bu jamono jooja weesoo nga xam ne jamono jooja wees na waaye xam kenn du ko xaare suba saa bula la e, saa boo xamee ne war nga koo sàkku rek ca waxtu wa nga ko war a sàkkoo jugal nga sàkku ji ko waaye bul ko xaare leneen bul ko xaare ay soxla bul ko xaare ab temps bul ko xaare dara ndax xam-xam da ngay jël sa lépp jox ko su ko defee mu jël leen na moom jox la ndax ne na fa inna humuma dunya naka yitte adduna yi de laatam tam xation du dog abadan ba faaw ne na li tax mu wax la lool de mooy yitte yi nga xam ne moo nekk ci adduna de du dog mukk ndax yitte joo xam ne nit ki faj na ko rek yeneen yitte ñëw taxaw euh, moo tax mu ne xaala wax na fa ma xada fajut ahadun kenn min haa ci moom lu baanatahoo aajoom walantaha te jeexut arabun jenn soxla illaa ilaa arabin ndare jeneen aajo taxaw ci kanam nena li tax mu wax la loolu day mooy du àdduna dafa bari ay ay yitte àdduna dafa bari ay soxla ba nit ki sépp soxla soo xam ne taxaw na faj ko rek buy pare rek jeneen soxla taxawaat ci wetam kon su fekkee ne soxla yi ñoo lay tax a e, bañ a sàkku xam-xam wala soxla yi ñoo lay tax nga bañ a jox yitte xam-xam nee na soxla yooyu moom na nga xam ne yaa ngi ñoom yéenay ànd di dund ba ba ngay faatu di dugg ci biir bàmmeel yaa ngi ñoom kon bu la buñ la teeree sàkku xam-xam na nga xam ne doo ko mas a sàkku ndax e, nee na nit fajut aajo mukk lu dul ne ba mu paree ci aajo jooja rek geneen aajo daa ñëwaat taxaw waaye nit fajut lu soxla soo xam ne daf koo yitteel mukk ba pare te amul seneen soxla su gën a ñor soosa su ko gën a yitteel ñëw taxaw ci kanamam kon bu la soxla yooyu téye tënk la ba sàkkuwoo xam-xam na nga xam ne euh, du dooma sa xam-xam moo tax mu ne wa annaka naka yow xat taxrimuka amaana mu euh, dog la almaniyatu faatu dee xabla zalika la njëkk loola fa innal mawta naka dee dey aqrabu moo gën a aqrabu xaa'ibin moo gën a jege aji fàddu wala yaati te du dikke illaa baxtatan ndare ci mbetteel ne na mi ngi lay xamal ba tey ne su fekkee ne danga jël ay soxla day teg ko ci sa kanam naan su ma fajee soxla yi doog a sàkku xam-xam na xam ne day dee mën naa ñëw dog la dog sa yitte yëpp dog lépp loo xam ne moom nga daan euh, baaxoo di ko taxawal ndax bari waa na nit ku sumb ay projet bala mu koy yeggale faatu ñëw fekk ko fa kon bu fekkee ne soxla yooyu ngay xaare sàkku ji xam-xam ne na na nga xam ne deede luy bett la te buy ñëw du la xaar ngay eggale yenn projet du la xaar ngay sàkku ji waat xam-xam kon buy ñëw na la fekk ca yoon wa rek na la fekk ci sàkku xam-xam su fekkee ne waxtu woowa moom nga tollool waaye bul ko xaare suba mukk bul ko xaare euh, jenn jamono ngir dee moom mu nga xam ne dafa bette te buy ñëw du ñëw ci lu dun betteet su ma asara topp mu junju ilaa kayfiyati bi jëm ci na nga xam ne noonu lañ war a tegginoo maa cheyqi ànd ak sëriñ ba almurabbi yi ba di aji yar wal muallimi ak jàngalekat ba wal axi ak mbokk ma xaqan ca dëgg wa saaxi bi ak àndaale ba sidxan ci ak dëgg fa xaalam wax nee na ginnaaw bi nga xamee ne leeral na la loolu bu pare mu lay junj nag ñi nga xam ne noon teggiit yi nga xam ne moom nga war a ànd ak sa sëriñ bi nga xam ne moo lay yar di la euh, euh, tette ci li nga xam ne mooy diine waaye it ki nga xam ne moo lay jàngal nee na ñoom ñëpp teggiit yi nga xam ne ñoom nga war a am ak ñoom euh, suñ lay jàngal wala suñ lay yar yooyu yëpp tamit ay teggiin la yoo xam ne baax na nit ki xam ko ba buy jëflante ak ab sëriñam mu sàmmonte ca ak loola moo tax mu ne fa xaalam wax wa gaayatu tawqiiri waqir sayqaka ne na wa sayqaka sab sëriñ wa sayqaka sab sëriñ waqir nanga nga wek sayqaka sab sëriñ gaayatu tawqiiri daytalu wek maanaam nang nga ko wek fu wek mën yem na ko wek sab sëriñ wajaalhu te nga def ko sayyidan mu di ab sang hëb na nga may loxoo ñeel ko xayraka sa wiiw nee na sëb sëriñ bi nga xam ne moo lay jàngal day na ko wekk sa kemtulaay kàttan loo ko mën a jox ci ab cër loo ko mën a jox ci worma loo ko mën a jox ci sutura nee na doyut nee na na ko def mu di sa sang na ko def mu di sa euh, njiit la sa sa sa sa njiit ci lépp loo xam ne ci ngay dugg waaye na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax nee na lépp loo xam ne moom nga am ci aw yiw nag man ko koo baaxee nee na nanga ko jël nga baaxe ko ko ngir lan ngir euh, li nga xam ne moom lay def ci yow muy xam-xam am solo goo xam ne am na ko solo waaye it euh, euh, sàkku goo xam ne nit ki war na koo sàkku ndax dañuy wax utlubil ilma walaw bi siin booba siin jafe woon naa dem lool ñu la doon wax naa sàkku jël xam-xam donte ne daa jar nga dem ba siin kon jamono jooja ni siin jafee na dem moo tax ñu la doon wax naa lan boo sàkku xam-xam bu jaree nga dem ba siin nga dem fa waaye jamono ji dañ lay wax ne sàkku xam-xam bu jaree sol dalli feer di dox ba dalli yi xotteeku na ko def ngir lan ngir am solo goo xam ne xam-xam am na ko solo waaye ngir uh, wattu goo xam ne uh, bindee fi war nañ ko ko wattu ngir mooy li nga xam ne mooy taaral ak jaamu yàlla mooy li nga xam ne mooy dimbali jullit bi ci ak jaamu yàlla mën a tegee ci li nga xam ne mooy xam-xam moo tax ne wax na nga faj alxawaija aajo ya lahu ñeel ko moom sab sëriñ maa li feeg yaa ngi dund bil basli ci ak yulli wal xidmati ak liggéeyal mastatanta sa kem kattan ne na sëriñ bi nga xam ne mooy jël xam-xam di ko def ci yow de lay teggin sa diggante ak moom mooy aajo jëpp aajo joo xam ne am na ko nga xam ko rek bala mu ko wax ne na dawal nga fajale ko ne na li feeg yaa ngi dund bu mu am aaju mukk nga yëg ko man ko caa taxawal man ko koo fajal te defaloo ko ne na loo man ci di ko yullil aw yiw loo man di ci di ko jox aw yiw ci di ko euh, jox addiya yooyu yëpp loo ci man ne na na nga ko def waaye loo man ci di ko liggéeyal na ko def ngir lan ngir li nga xam ne moom lay def ci yow muy xam-xam dafa doon lu màgg loo xam ne képp ku koy def ci yow war nga koo taxawu waaye it war nga koo bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax mu ne yaam yi li mu na annahu naka moom ya muruka dana digal bi an tuwaqira ci nga wekk sayxaka sab sëriñ wa an taqdiya ak ngay faj xawaijahu ay aajoom masatanta sa kem kattan nee moo tax mu ne ci saraa bi mu ne dina la digal ngay wekk sab sëriñ waaye ngay euh, wormaal sab sëriñ di ko fajal jëpp aajo joo xam ne yëg nga ko mu am ko te nga man ko koo fajal nga fajal ko ko te yàlla rek tax waaye it te euh, yiw wi nga xam ne wala euh, xam-xam bi nga xam ne moom lay jël di ko def ci yow rek tax kon loolu euh, lu ndaw la ci li nga xam ne moom la donga bi di defal ab ndax xam-xam dafa doon lu màgg lu tedd loo xam ne képp ku ko def ci yow rek daanaka mënatoo ko mënatoo koo fay kon mooy li ñuy wax naa xum lil muallimi wa fihi tabjila kaada al muallimu an yakuna rasula nee na na nga jugal sab sëriñ te di ko màggal ndax xaw tuut rek sab sëriñ bi nga xam ne moo lay jàngal di def ci yow xam-xam xaw tuut rek mu doon ab yónent kon loolu li muy tettale mooy du jëmmi doomu aadama ji waaye jëmmi li nekk ci moom muy xam-xam bi loolu mooy li nga xam ne moo am solo moo tax mu ne la xaw tuur rek borom xam-xam bi doon li nga xam ne moo di ab yonent kon loolu ba tey ab bind la boo xam ne dañuy gën a joxoñaat di ñu gën a e, yóbbu ci ñuy gën a fonk xam-xam waaye ñu koy gën a sàkku ci waxtu wa nga xam ne ci lañ ko war a sàkkoo waaye ñu koy gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon ñu ngi tuub bu baax tey jéggulu di wàcc foofu suñu kàddu di wax ne lu ci jub ci suñu borom bi subhanahu wa taala lu ci dëng ci jaam bu xeebu bii doon ko def la di wax ne in uridu illa al islah ma stataatu wa ma tawfiq illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum

wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah salaamu aleykum wa rahmatullah على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم ridwaanu rabbil araadi wasamaawaati sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey